leneen li nga xam ne aussi moo ñu indi tey Sédhiou mooy ginnaaw bi mbas mi duggee Sénégal président Macky dafa jàpp ne fokk état bi gën a taxaw ci wetu nit ñi ndax dañu dugal dañu dawal juróom-ñaari at yoo xam ne dañu dugal investissement bu rëy ci réew mi ngir secteur bu ne nit ñi mën ci yéeg seen bopp rawatina secteur lu ñu mën a tuddee le secteur de léconomie économie informelle ndax foofu la ñu ëpp ci Sénégal nekk te jigéen ñee ci ëpp aussi donc liggéey boobu nga xam ne nit ñaa ngi koy liggéey jël seen coona ak seen doole def ci président ne duñ ko bàyyi noonu donte mbas mi ñëw na ndax mbas mi feebar la ci wér-gi-yaram la aaju waaye li mu yàq ci koom daanaka xëy na moo ëpp sax li mu nekk di def ci wér-gi-yaram ba tax na mu ne dinaa yëkkati juróom-ñetti téeméeri million dugal ko ci programme boo xam ne dina dem ci wàllu ñiy yëngatu ci microfinance ak ñiy yëngu ci économie sociale et solidaire bim ko ci dugalee tamit ñun def nañu liggéey bim ñu sant ci ñaari pàcc am na pàcc boo xam ne dañ koy jël dugal ko ci li ñuy wax mutuelle isole am beneen pàcc boo xam ne dañ ko jël mu nekk ndimbal ñu delloo ko groupement yeeg mbootaay yi waaye li ñu nemmeeku bi ñuy def liggéey boobu mooy Sédhiou donte am na ay réseau financement yu mag yu fi nekk mais nemmeekuwuñ fi lu ñuy wax mutuelle isolée maanaam jigéen ñi dajaloo am seen kuréelu bopp di ci def financement seen biir lu yoon nangu am na ñoo xam ne ñu ngi koy def mais amaguñu lu yoon nangu kenn reconnaître leen moo tax ba ci pàcc boobu Sédhiou bénéficié wu si mais ci benen patch bi nga xamné subvention la ay ndimbal yu ñuy joxé la bobu Sédhiou amna ci lu tollok euh ñaar fukk ak juroomi millions ak lu tek tuuti. ñu yebal la tam ci président de la république nek nga ñun dé ñetti département ñu koy gërëm bu baax ñu koy sante si xel bu muy ba si population yi ndax gis nañu la ay weer yu paase matul weer bu passé sax Mansour Faye ñëw na ci si département si commune yépp pour indi d'imbel gouvernement d'imbel président de la république c'est lu ñu nekk loolu mooy firnde ah mu bay xali bu baax njabootam. dimbal bu ñu bett la te lu la bett moom mën la vraiment kontaan nañ ci bég nañ ci te bett nañ kontaan nañ ci lool lool lool lool di remercier ministre. bi nga xam ne moo déplacé wu jógee Dakar ñëw ba Sédhiou indil ñu ndimbal vraiment ndimbal yoo xam ne yëgg na yàgg na yooyu am ay ndimbal waaye ndimbal yoo xam ne comme ay genre fonds perdu vraiment loolu moom gëj nañ koo dégg. ndimbal bi mu indi nii tamit incha allah dinañ ko téye dinañ ko gérer dinañ ko gérer nu mu waree dem nu ñu ko waxee rek noonu lañ koy gérer parce que fi mu nekk ni moom région bi sonn nañu te xam nañ ñun xam nañ situation bu ñuy fii